nee na tawféexam moom lañ tàbbi ci biir ndax moom moo am ndigal mu amoon ndigalal gàmm ci ci ci ci barab bii nu fekk si ko <laughs> waaw moom si moom mii ak ak mii ak nun ñii loolu nag cant gu rëy a la nee na xéewal gu mag a mag la nee na ñoo ngi leen di sante suñu borom bu baax a baax moom mi nu booleeg sëriñ bi di sant sëriñ bi muy sunu lépp di leen sante di leen santewaat sëriñ bi ci tawféex gii nu bokk noo ngi leen ciy sante sëriñ bi lépp mooma lépp pàggutee fam la nan sant te ne ci rek nii mu demee rek nii lu weesu rek nan ko xeeb nan ko xeeb ci leen jëm sax ci sant dàkk sax dàkk ci sant rek ak gën a soññ suñu bopp lu nu weesu rek nan ko xeeb tabaarakallah jërëjëf sant bu baax na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal mbàkk jërëjëf amin amin amin amin jërëjëf mbàkk jërëjëf